am léegi démarche di interpeller du ñu xaar homme politique yi du ñu xaar parti merci Oumar euh, professeur lii naam lan ci rapport yi ban ban ban gis-gis nga ci am ban jàngat nga am ci rapport yi nga xam ne IGE génn nañ ko jox ko président de la république waaw dinaa ci sawar tontu xam nga IGE euh, dañ ko jëmmal mhm. moom c'est la plus haute administration mhm. c'est la plus haute administration mën na saytu fu ne armée même fii kër gi ngeen nekk. Mhm. mën na fi ñëw. mun na dem ci banque yi kenn mënu ko même opposer le secret professionnel moo tax c'est un de d'élite boo xamante ni nii dañ ko war a téye. Mhm. léegi nag IGE loi cinq sax dañoo dem ba 2011 ñu indiwaat loi bu bees pour moderniser ko. Mhm. IGE day def rapport yu bari ay catégorie de rapport la bii rapport public la. annuel chaque anne dafa war a génn te loolu moom mooy li may njëkk a fustiger. même IGE boo demee moom ci avant propos bi rek daf la koy wax ni la IGE day produire rapport public annuel destiné au président de la République mm-hmm. en fait su fekkee rapport bi publier wuñ ko ça veut dire que ñi ko war a jox président joxaguñu leen jour pour audience pour ñu mën a dajeek président de la République c'est simple comme bonjour et damay wax ni yaa am na cas d'école parce que c'était le cas de l'OFNAC madame Nafi Ngom Keïta doon na wax ni doon na topp ci président de la République pour donc jégal ko rapport mhm. loolu nag lan lay indi IVE am na yeneen rapport yu muy def mhm. par exemple les rapports de vérification administrative et financière les rapports d'audit et cetera mhm. mais yeneen rapports yi maintenant c'est des rapports secrets kenn amul droit laal ko président moo ko yor. Mhm. moo tax soo xoolee système mu Sénégal dafa am trois types de secret dañuy wax ah, confidentiel très secret ak secret. les rapports de l'IGE sont secrets. maintenant moom moom la laaj parfois mu déclassifier ko euh, très bien suñ ko mhm. déclassifié kenn mënu koo gis. boo gisee en 2005. dans l'affaire des de Thiès. Mhm. dañu jël décret pour mën ko déclassifier. donc boo demee sax ci site IG e, da gis yu ñuy déclassifié. léegi lii. am problème mooy lan problème de gouvernance xam nga IGE su defee rapport public rapport bi day am ay recommandations mais attention dafa am core yoo xam ni la plupart du temps recommandations yi ñuy def c'est des recommandations contraignantes soo jëlee ko mel ni cour des comptes ces recommandations sont contraignantes parce que cour bi c'est une juridiction mm-hmm. contraignante mooy lu ñu war dañ ko war a appliquer boo gisee nag. li ciy tey xel man damaa jaaxle parce que président de la république soo jëlee rapport cour des comptes bi ñu ñëwee dafa waxoon day teg commission n'est-ce pas. waaw ah, mm-hmm. de respect à l'institution ah, la parce que cour des comptes ci institution yi la boobu cest dire ci article bu constitution bi léegi IGE ma dellu si waat cest dire que IGE su la waxee. boo xoolee da ngay gis ni ay enquête approfondie lay def duut baaraam ni fii xaalis bi perte nañ ko waruñu ko woon perte léegi nag système mu Sénégal dafa système mu Sénégal dafa am nu mu demee gis nga IGE ñun bu ñu koy jàngale dañu koy dugal parmi les tiers pouvoir maanaam boo gisee tey la presse tiers pouvoir la soo gisee tey par exemple ces institutions te corps de contrôle c'est des tiers pouvoir maintenant soo bëggee am un système performant de check and balances wala un système boo xam ni yow dangay am ay contre pouvoir ñooñu da leen di dooleel léegi pour nga mun la dooleel IGE lenn rek moom nga mën def comme nguur gi ñu yor toujours président de la république bi day am parteem te ñi mu dénk ay responsabilité ñooñu la ñuy épingler il faut nga jël IGE nga génne ko présidence yóbbu ko cour des comptes parce que ci loi bi euh, comment dirais-je IGE am na pouvoir d'autosaisine comme OFNAC mais OFNAC sans président wax ko dara mu defal boppam bien sûr mais day rendre compte président de la République par contre mhm. OFNAC dañ ko may moom bu jëlee rapport yi da koy jébbal procureur suñ ko yóbbu woon cour des comptes nga xam ne IGE su paree rapport bi da koy jox cour des comptes pour mën a juger nit ñi nga xamante ne bu boobaa sax Sénégal parce que dama jàpp ni ñu bari bu dee yenn dëkk yi dañ lay woo rek ne la diw lii ak lii def nga ko remboursé ko mhm. parce que c'est plus pédagogique oh. soo ko deful ñu saisir say bien wala dara parce que loolu la ñu gën a ah, mais loolu rek sax bu ñu ko doon def dootul am. effectivement moo tax mais réforme yooyu nag boo xoolee moo tax homme politique yëpp le président ñu ci bari ñoom ñëpp bu ñuy laaj nguur gi dañu naan bu ma ñëwee président bu ma ñëwee IGE dama koy génnee à bu ñu ñëwee dañu ci dëgg seen tànk parce que dañuy def lu leen arrangé parce que xam nañ rapport yi mën nañ ko jël contre des opposants mhm. mën nañ ko jël contre des adversaires ak ñi nga xam dañoo ànd ak ñoom aussi dañ koy jël denc ko ba boo bëggee génn wala dara ñu ne a fi donc tey jii nii li ñu war a def mooy def de telle sorte que IGE c'est parce que corps bu am solo la ba nga xam ne IGE bu Sénégal dañ ko naw day dem am ay rapport yoo xamante ne moom da ko am ak yeneen IGE ay Djibouti ay yeneen dëkk ba nga xam ne tey jii nii war nañ ko mën a dooleel yokk sañ-sañam ak génne ko président merci beaucoup jërëjëf professeur malheureusement temps bi jot nañu euh, dab nañu benn ponk rek bu mu bëgg ñu ko muy wàllu déclaration de patrimoine euh, tey ci conseil des ministres gis ngeen président di xam ne ñoom lañ mujj fal 15 mois après daanaka at ak genn wàll mu leen di defloo cette déclaration de patrimoine est-ce que loolu du dellu si ci problème autorité bi nga xam ne junj nga ko léegi ci parti politique yi. ci tënk rek nga baal voilà non ci parce que tey mënu comprendre ministre boo xam ne fal nañ la. ñooy la war nga def déclaration de patrimoine 15 mois après président de la République dellu si naan la def ko pour nga war ko def loolu quand même pose un problème effectivement maanaam warul dafa war a dugg non dafa war a génn ci ay calcul politique ak yu demee noonu. saa nit koo xam ne jox nañ la liggéey boo war a def waroo ko def bu jaree mu génne la mu génn la il faut que vraiment qu'il donne un signal fort aux Sénégalais. ci déclaration de patrimoine ouais, non, non contrairement à Babacar je trouve que le président a trop d'autorité au Sénégal ah. <laughs> autorité bi moom dafa bëri quoi mais mais je trouve simplement que euh, li ñu doon wax ci ministre de l'environnement mooy dellu si fii. Mhm. mooy euh, être ministre c'est une fonction politique boo xam ne. daf lay astreindre à un certain nombre d devoirs de comportement. Mm -hmm. et de comportement yooyu bi ci njëkk mooy respecter la loi. et la loi moo leen wax dañu def déclaration de patrimoine donc un ministre qui or hors la loi doit être hors du gouvernement. Omar Seck Ndiaye. pour man. ci déclaration de patrimoine pour man loolu loolu cinéma la rek parce que du nekk loo xam ne du nekkul dëgg si ñoom parce que ni ki deful euh, déclaration patrimoine bu la jaaxal kan moo ko fa teg. Mhm. est yaa ko fa teg wala indien yaa ko fa teg maa la sant defoo ko ma jëlee defoo. benn patrimoine sori na ñi ñu jàpp dañ ko réglé pare soog a dàq ay patrimoine patrimoine li ñuy wuti la lii dañ ko gis lii ay njublang la lii ay luubal la gis nañ ko teg na si bët jaxaral mais fa lay mujjee lépp tàbbi géej ñii am promotion ainsi de suite donc moo dama ne il faut ñu bàyyi cinéma bi dugg ci vraiment les choses sérieuses professeur man damaa jaaxle bi ma ko déggee parce que xam nga moo tax président de la République bi ñu ko falaatee veille bu mu war a prêter serment man dama bind benn papier wax ne regard critique su le wax ni président de la République dafa war a def déclaration de patrimoine moom article 37 bu constitution defagu ko ba tey kon président moom même moom deful déclaration de patrimoine kon su ko ministre deful man du jaaxal beneen bi ci mhm. topp mhm. mooy damay jàpp ni déclaration de patrimoine boobu noonu su ko deful mi ngi violer constitution bi beneen bi ci topp mooy mënuñu ñëw Sénégal ñu jël loi tënk ko damay wax ni état de droit noonu ñi nga xamante ne ay ministre lañ parce que dañu jël déclaration de patrimoine pour sa sécuriser quand même mhm. pour ni ki nga xamante ne ko jox benn donc budget bu yamee un milliard dañ ko ne da ngay déclarer sa patrimoine mais ñooñu bañ fu ñu ko teg mais Pape yow sa bulletin de salaire da ngay ñëw man sama bulletin de salaire dañuy dagg impôt te dañ koy nangu parce que loi moonu ko sas mhm. pourquoi ay ministre ñëw ñu jox leen nombal tànk jox leen lépp ñu bañ teg ci tànk ni dañu def déclaration de patrimoine président de la république dama naan sa responsabilité moom moo engagé wu parce que lii dans une démocratie c'est pas normal waru ñoo daw ci ginnaaw ministre yi képp ku ñu fal ministre bëggoo def déclaration de patrimoine da nga war a tekki sa nomba tànk merci moi je pense que loolu moom la ñu war a def muy une obligation de la loi euh, jërëjëf professeur Ngouda Mboup nekk jàngalekat ci euh, université euh, ñi ngi lay gërëm bu baax am ci recevoir la tey euh, di àndoon ak euh, Ababacar Fall moom itam jiite GRADEC euh, fare ci société civile bi moom itam kontaan nañ trop ci recevoir ko Alioune Ndiaye moom itam nekk taskatu xibaar jiite plateforme boobu di Pikine yi ñu am ci mbégte itam moom itam ci recevoir ko naka noonu Oumar Seck Ndiaye nekk écrivain nekk moom itam taskatu xibaar tey mu nekkoon ponk yi nga xam ne yëkkati nañ ko jàpp naa ni bu ci nekk rek mënoon nañ ko gën a yaatal oh, ñu am mbégte nag ci li nga xam ne noonu ngeen àndee ak ñun ci débat bi waaye itam di gërëm téléspectateur di leen jox rendez-vous incha allah